وإمام أصفيائه والمتقين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbok yi nga xamni yeena ñuy seetaan ci seen télévision ties Média ginnaaw ba nu sante yàlla subhanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi leen di nuyu bu baax ci nuyoo bi nu yàlla boole muy jàmm ak yërmande ak barke yàlla nañu ko yàlla boole defal jiital ci nuyoo bi kilifa diine yi jiital ci sunu baay bii ci kanamam elage muy bàyyi saydi mouhamadul muniru njegéen tabarakallahu saahibul xilaafa tey ni ñu nuyu ko bu baax ziyaara ko fa tabarakallahu jaar ci moom nuyu mbollem kilifa diine yi nga xamne ño nek ci Thiès sunu mam alhaji khalifa Kebe ñaanal sunu mam ju tedd ja Serigne Saliou Touré yal na yàlla yeesal yërmande ci mom waye yar nañu yàlla taas ci barkem barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam waye ñi ngi nuyu bu baax sherif nama Haydara bu mam sherif abdul Aziz Haydara fa tabaarakallahu ak mbollem ahlu baytur rasul gi nga xamne ño nek fi ci ties waye ñi ngi nuyu Serigne Habib Kebe Serigne Habib Kebe ñi ngi koy nuyu bu baax diko ko waaye di nuyu almuqaddam Serigne Habib Gaye muhaddamu Seydi Mouhamadou Mansour borom daara ji fa tabarakallahu nuyu mbooleem kilifa diina yi nag waaye ñu dem ba Tiwaawan nuyu sunu Serigne xalif général des Tidiane Serigne Babacar Sy ibnu Cheikh Alhaaji Mansour di ko ñaanal yàlla li mu naal yépp yàlla na yàlla may ko mu àggale ko bi ci gën a rëy di jumaa yi maamam ji di jumaay Seydi El Hadji Malick nga xam ne mu ngi ko taxawaloon noonu yàlla waaye sëtam bu baax bi Serigne Babacar Mansour di ko réfectionné waat di ko defaraat ba mu gën a rafet ndax inna allaha jamilun yuhibbul jimala yàlla dafa rafet te dafa bëgg lu rafet moom yàlla looloo tax sëñ Babacar Sy Mansour jugaat di defaraat jumaay maamam ji maamam taxawaloon yàlla ñu ngi ñaan yàlla ci mbaaxam yàlla na ko yàlla muy mu àggale ko ci jàmm ñu julli ci ci jàmm mu fekke lépp incha allahu dem ba Touba nuyu sunu maam Serigne Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général des Mourides nuyu mbooleem xalif généraux yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal yëpp nuyu borom xam-xam yëpp nuyu imam yëpp fa tabaarakallaahu waaye mbooleem téléspectateur ak téléspectatrice yu Thiès Média yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di nuyu kilifa aada yi ñu ngànk réew mi ci wàllu administration rawatina ñu ko ngànk fii ci Thiès tabaarakallaahu ñu ngi leen di nuyu bu baax jaarale ko ci premier magistrat de la ville de Thiès muy le maire Babacar Diop mu yobale mbollem autorité administrative yi nga xamni ño nek fi ci Thiès tabarakallah mbok yi yéen ngi ci sen télévision Thiès Média nima ko waxe ci sen émission bu mag bi di émission Al Karim di émission bo xamni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ fi bak mom lañ fi way mom lañ fi waxtane ay njangalem lañ fi waxtane ngeen koy am nak fi ci Thiès Média tabarakallah 15 jours yu jot ñu ngi nii nag ci résidence Serigne Babacar Sy résidence Serigne Babacar Sy nag bu ñu ko waxee mi ngi fii ci Ngent fa tabaarakallaahu ki ñu fi dalal di kii ngeen di gis Serigne Ibrahima Dia borom tawféex borom jinne yi tabaarakallaahu di sunu sëriñ di sunu xarit di sunu soppe di taalibe sëriñ Babacar Sy di soppe sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax bu nu yëkkatee émission boo xam ne ci yonent bi salaay salaam lay wax ak diine tabaarakallaahu sunu xel du dem fenn fu dul ñëw fii ci résidence Serigne Babacar Sy radiallahu anhu defe ko fi kon Serigne Ibrahima Dia ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaara di ko ndokkeel di ko ñaanal yàlla yal na yàlla dolli jaamam yal na yàlla dolli ijaabaam tabaarakallaahu mi ngi def résultat yu am solo ci wàllu ñaan fànn bu mu mënti doon tabaarakallaahu yal na yàlla dolli résultat yi yàlla bu fi yaakaaru kenn tase yaakaaru kenn tase gu fi yàlla bu fi yaakaaru kenn tase ci barke yonent tabaarakallaahu di nuyu techniciens yi nga xam ne ñoom la ñu jàkkaar lool tabaarakallaahu di leen wax ne nag émission baa ngoog ñu fas yéene bàkk yonent bi alayhi salaatu wa salaam tey nag sama invité mooy së sunu xarit sunu soppe sunu lépp waaye soppe ñëpp nag di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mën ko lool di boroom xam-xam nag boole ci tabaarakallaahu kooku mooy Serigne Samba Mbodj Serigne Samba nag tabaarakallaahu xam nga ni yaa ci sa émission. Euh, alkarim fii ci Thiès Média ñu wax ni saxaar bu jubee gaar day korne yaa ngi nii soppe Seydina Muhammad yaa ngi nii wa anta alladi qusista kulla mahabbatin ولم يك ذاك الوقت غيرك باديا وصل حبا دموعا عظيرة ولا تلتفل للغير بالحب فانيا محبته يمن وأمن ورحمة وتكسو من الأنوار من كان عاريا محبته وأمن وأمن ورحمة وتكسو من الأنوار من كان عاريا فويل قريش إذ خلوا ووده من العرباء الغر من كان نائيا نبيا أبدا أن محمدا المختار في الخدم صليا يا إلهي وجزيا موضوعنا أن محمدا المختار في القدم موضوعنا آمنة بالت وبالابن عبدي ما ناب ابن ذو أم المصطفى العالمين صلي يا إلهي وجزيا مودنا أن محمدا المختار مولى مالكنا ابن كلاب وخلف انتزاع دوما عتكات قيل إن الأم وهبهم من مولدنا أن محمد المختار مولى مالكنا وغير ذلك قالوا كان سيدا قومي كما جاءنا فردا لعسرهم غير ذلك أيوة قالوا كان سيدا قومي كما جاءنا لقيتي أن لقيت موضوع وبرت أم ها أي أم آمنة أم حبيب فأم البرة الكرم برة أم ها أي أم آمنة لا أم حبيب فأم برة الكرم وبرة بنت يوسف أم أمي حبيبي لا تذل دائما في البأس والهمم برة أم الله وسلم صلى الله عليه وسلم أبي دق المالك فامني وفي قصي لقاء المصطفى مرة وأم حبيب باتفاقهم أجها أي أم آمنة وحبيب الفأم دق المالك فامني وبرة بنت عوف واللقاء على كعب حرر ولا تدعني حقهم أها أي أم أيوة أم حبيب من مودم جنجلني فره تراه في كل تقديراتي نسفا شرع فيه خريس من قلاسهم درأوا في كل وعائراتي نسبا سريعا بير خريس أنا صبي ننتي بمؤمن دامين لو أمن ماغي يك يك لي بخو مؤمن دامي خالم سما خلبي ون من شرع فيه قريش من قلاسهم بي في كل نزان نسبا سريع اي واي دق المالك فاما في مودي مكة اكل رايو لمبيا اك نيولايو كاباغا سمنت nit waa xuusil في كل تقديراته نسبا شرع فير خريش من قلاسهم في كل تقديراته نسبا شرع فير قريش أمنك ملخ أقني من الخج ويرى دفنا زينب زينب بالله كدم الصا زينب زينب إيه، اي سنغبا زينب بالله كن يننتي بوا زينب آه، اي زينب آية زينب أسأل حفير قريش من قلاسهم ضربوا في كل بالله نسبا سرعا ليس لا إله إلا الله لله در الله ذي قد قال ماضيعا أتجلاه مولاه خيرا غير منصصر به مولاه مولاه منصر مي فالعرب خير ناس ثم خير أتى قريشهم وهو فيهم خير خيرهم مي فالعرب خير ناس ثم خير قريش ليس وهو فيهم خير خيرهم وبرة بنت عوف أمها فأميمة فأميمة فأميمة مودون أميمة خيلا دينا سلمى ليلى رباب سودة ومعاناة مهدد على أبيات تغتنم فهم ميمة خلابة أم هذه اغتنم الغرب خير أين هذه ثم خير مودو مودو مودو دبة أمها قل أم دبتا لبنها ألا أربع من غير فيهم من دبت آه. بالله يدك ولودك يا ألا أربع أتي لا إله إلا الله صلي يا إلهي وجدي أبا إيه، أنا محمد أنا المختار في القدم صليا يا إلهي وجدي أبا المختار في القدم barakallahu barakallahu dégg ngeen noonu nga xam ni noonu la Serigne mbooj Mbodj tabarakallahu nuyoo soppe Seydina Mouhamed yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan fii ci seen télévision Thiès Média tabarakallahu ci émission bu mag bii di Al wax naa leen ñu ngi ci résidence Serigne Babacar Sy euh, ci kër Serigne Ibrahima Dia borom tawféex borom jinne yi tabarakallahu ngeen dégg sëñ Samba noonu mu nuyoo ci khilas zahab bu mam Cheikh sayyid al Hadji malik radiyallahu taala anhu nga xamni sayyid al Hadji malik radiyallahu anhu mi ngi ñuy jàngal ni ndekete sayyiduna Muhammad abdullah mi bayam nijaayam la waye mi ngi ñuy jàngal ni Amina mi yaayam bàjjanam la tabarakallah kon nga xamni sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam ndayam ak bayam ñoo bokk benn maam gars yi kon loolu jar naa bàyyi xel ni magi Sénégal mag ñi lépp loo xam ni def nañu ko lu jar a bàyyi xel la ndax léeg-léeg nga gis ñu koo xam ne dañu koy wutal doomu nijaayam may ko ko wala ñu jël doomu bàjjanam may ko ko ndax maam Abdul Muttalib euh, di maami yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ni moo jur Abdullahi moo jël sayidatuna Amina tànnal ko maam Abdullahi ndax maam Abdul Muttalib bi yàlla dogalee mu sikkan ñi teenu zam-zam ba nga xam ni waa ju ñuy wax amr moo ko moo ko moo ko sakkoon jël lépp loo xam ni loo lu kaaba gi moom la muy ay jaasi muy ay kéwél yoo xam ni wurus lañu ko tëggee jël ko yooyu la jël sakke ko teenu zam-zam ndax moom la ñu dénkoon kaaba ga moom moom amr dénkaane dénkaale ko zam-zam ba ñu demee nag ba ay ñaawteef yoo xam ne ma ngi ko doon def ca kaaba ga ndax am na ñoo xam ni tey dañuy jël lu mel ni jàkka wala lieu de culture loo xam ni fu sell la ñu dénk leen ko mais ñu fay def ay ñaaw ñaawteef amr nag dafa am ay ñaawteef yoo xam ni euh, moom moom la daan moom la daan def ca Kaaba ga bi nu demee ba découvrir ñaawteef yooyu ni ko cell teg Kaaba gi ak zëm-zëm gii nga xam ne sunuy a ñu ko fi bàyyil tabaarakallaahu ak ñaaw teef yi ngay def àndul amr nag ba ñu ko waxee loolu xamal xamal ko ni ko kaaba gii ñu la dénk ak zëm-zëm gii ñu la dénk dañu koy nangu ci say loxo dénk ko keneen sëñ Samba Amra dafa bàyyi ba guddi mm-hmm. mu jël li nga xam ne dañ ko hëddiyeloon kaaba gi benn buur bu ne wax saasaanu mm-hmm. ñii naan déedéet saa la tudd mm-hmm. moo jël ay ay jaasi ak ay kéwél yoo xam ne wurus lañu ko tëggee ñëw ñëw hëddiyaal ko kaaba gi bi ko ko hëddiyaalee kaaba gi nag Amr moo ko doon denc Amr moo dem ba découvrir ni ñi ngi may waaj a génne fii ñi ngi waaj a jël dénkaane kaaba gi ci sama loxo jël yooyu nga xam ni moom la ñu hadiyaaloon kaaba gi daal koy jiital ca bëtu bët bëtu ndox bët ba nga xam ni fala ndoxu zëm-zëm doon génne mooy bëtu teen ba mhm. moom la fa jiital daal di ciy teg ay xeer tabaarakallaahu sakk teen bi ci guddi gi xëy fajar génn moo tax sa maam Seydi Haaji Malik ni wa biru zam-zama amrun tammaha hasadan is akhrajuhu li jawrin kaana fi harami wa biru zam-zama teenu zëm-zëm bii amrun waa ji ñëw amr tammaha moo ko sak xasadan ngir dafa iñaan dafa soxor is ba nga xamee ni axrajuhu génn nañ ko ñoom waa màkka li jawrin ngir ñaawteef yoo xam ni kaana la nekke woon fil xarami ci ci ci ci kaaba gi bi ñu génnee amr nag samaam maam si laaji malik nee na toog na diiru jamono boo xam ne téernu zam-zam dafa réeroon Cheikh Ibrahima toog nanu diiru jamono boo xam ni sëñ Samba teenu zam-zam dafa réeroon gaa yi wër ba sonn gisuñu teenu zam-zam maami sayduna muhammad bi ñëwaa abdul mutalib nga xam ni ci moom la yàlla def leeru rasulullah moom abdul mutalib moo tëdd guddi gént ñu ni ko miin bay ni farsin wadam min ci diggante fi ñuy rendee ak fi nga xam ni fa la ñuy fa la ñuy feese ndax waa Màkka dañoo amoon ñaari place place bii la ñuy rendee di feese place bii fi ñuy rendee isaaf la tuddoon fi ñuy feesee naa ila la tuddoon ñu ni ko ci diggante nag min bay ni farsin ci diggante fi ñuy feese di fa sotti sibritu giléem yi wa dam min ak fa ñuy rendee deret ja dafa tu di fa tuur ñu ni ko ci diggante boobu boo demee ba ci këru xorondom yi ci këru xorondom yi boo demee foofu di nga fekk benn baaxooñ bu fa takk di cof baaxooñ bi fi mu takk di cof ci këru xorondom yi diggante isaaf gi ñuy rendee ak naa ila gi ñuy feesee boo demee fa baaxooñ ba taxaw foofu la teenu zëm-zëm nekk abdul mutalib gentu ko ñetti yoon bim ko géntee ñetti yoon mom abdul mutalib jogrek rek daa di gàddu ay pikam daa di gàddu ay pelam wa màkkaa koy de mu xey gas gaay yi naan ko loy gas mu ni teenu zëm-zëm laay sikkar ñi gaay di ko ree ndax Sénégal Sénégal sax da ngay gis lolu fi, da ngay gis ko xamni bu afer ben affaire di tambali di ca nek ñépp dañuy jóg di ko di ko di ko di ko di ko di ko di ko di ko saboote di ko saboote di ko wan ni ko mënoo réussir yaa ngi soobu waaye doo réussir waaye ku gëm sa bopp réussir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dani ko boo boo gëmul sa bopp mënoo réussir moo tax amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi yonent bi salaay salaam moo njëkk a gëm boppam ci li nga xam ni moom la yàlla wàcce ci moom lolo tax rasulullah dem tay ba réussir mission motax ku gëmul sa bop di déglu waxu nit ñi trag yi lay sanni fi ak yang koy top ak di leen déglu réussite dula yomb Abdul Mutalib di gas di gas di gas ñukoy ré muy gas ñukoy ré ñuy gas ñukoy ré Abdul Mutalib di gas ñukoy ré muy gas di gas di gas ba tambalé yam yam Samba fa jasi ya ne jasi bimu yi jasi yam ci ñaari kewelu orusi ñaari kewelu or yi génne ñaari kewelu or yi bu mu génnee jaasi ak ñaari kewelu or yi automatiquement ndox mi dafa ball automatiquement ndox mi dafa ball bi abdul mutalib gasee ba génne loolu nak xam nga sénégal amna fi ño xamné boy sonu duñu ko fekke té jari jariñu ñu bëgg ñew ñëw ak yow jariñ la wala ñu bëgg ko jariñoo bàyyi la wa Màkka non la def abdul mutalib niko ba ngay sonu ñing lay seetaan mais jari jariñu ñoy bokk njariñ li wala ñu sàkkal la pexe wala ñu wër yàq sa der ne am nga alal dimbali wooñu nangam ak nangam. bari doole Abdul Mutalib booba yàlla dafa dogal jigéen la njaboote woon amul doom bu góor te màkka ko amul doom bu góor duñ la teg fenn ndax dañuy xam ne sa doole bariwul li ñu daan tiitaroo mooy ay doom yu góor yu bari doole waa màkka loolu lañ daan tiitaroo Abdul Mutalib yàlla dogal waa màkka ñëw ni ko lii nga génne ci biir teen bi non seulement teen bi dañu koy bokk mais yi nga génn ci biir teen bi dañu koy bokk dañuy bokk teen bi mais yii nga génn ci biir teen bi dañu koy bokk maam Abdul Muttalib ah yàlla dogal bi ñu négocier ñu ni ko léegi dañu koy tegoo bant. ñu def affaire bi ñaari xaaj teg fii jaas yi teg fii kéwélu or yi daal di jël ñetti bant Abdul Muttalib bi bi jël bant yi ñu jël bant yi jox ko benn xale benn bant bi Kaaba gee ko moom benn bant bi Abdul Muttalib ko moom beneen bant bi notable màkka yee ko moom ñu jël benn xale jox ko ñetti bant yi ni ko da dem ca saam yee saam bu ne ñaari saam yi saam bu ne nga teg fa benn bant te indil ñu beneen bant bi xale bi dem jël bantu kaaba gi teg ko ci kéwélu urus yi daa di jël bant bantu abdul mutalib teg ko ci kaw jaas yi bantu waam notable màkka yi nag xale bi indiwaat ko bi ko xale bi indee moo tax samaam seydi haaji malik wax ni Euh, kaaba gi moo gañe ñaari kéwélu wurus yi ñaari kéwélu wurus yooyu moom lañu moom la defaraate buntu kaaba gi wa aslahal baaba baabal bayti cheikhul haaji malik nee na ñaari kë kéwélu wurus yooyu moom la ñu defaraate buntu kaaba gi ba rafetaalal buntu gi waaye waaye la ca des nag muy jaasi ak yooyu abdul mutalib moo ko gañe mm-hmm. waaye abdul mutalib li ko waa màkka def daf ko metti nee na bi mu nee wëriñ moom Abdul Mutalib dafa dugg ci néegam ñaan yàlla mhm. daan ni yàlla waa Màkka nii ñu ma def maa ngi lay ñaan yàlla nag ma may fukki doom fukki doom yu góor yoo xam ne dañu may dimbali ci su may liggéey ndax dèjà bi may gas kenn dimbaliwu ma waaye dañ may dimbali ci su suñ ma bëggee xeex ñu taxaw xeexle ma fil xitli wal xadami dañ may dimbali ci su ma bëggee xeex waaye dañ may dimbali ci su ma bëggee liggéey mhm. loolu la Abdul Mutalib ñaan bi mu ñaanee ñaanam googu nag fa naa la maaraama min mawlaa wa asharata abna ci la ci la ci la amee nag la nga xam ne moom la bëgg bi ko ko yàlla di may tamit yàlla daf ko ko jaaralee ci gént samba yàlla daf ko jaarale ci gént ndax dafa tëdd guddi géntati moom abdul mutalib bi mu géntee moom abdul mutalib benn garab moo sax ci ndiggam daal di lëw-lëw yi wuti kaw asamaan car yi wàccaat laal suuf Abdul Muttalib samaam Cheikh El Hadj ni bi mu mm-hmm. géntee loolu dafa tiit dali bëri tiit yàkkamte fajar gi xar ba mu dem ca firikatu gént ba mm-hmm. raa manaaman aziman qaiman fazian wa qaala in sadaqa ruyaaka fabtasimi ndax la yuxrijanna ilaahi minka man tabian lawal xalaa'iqu min jinnin wa min nasami abdul mutalib bi mu géntee loolu dafa xëy dem bi mu demee laaj ñi nga xam ne ñooy firi gént ñii firi gént daan ni ko sa gént googu daal bu ko yàlla dëggalee muuñal ndax yàlla dina génne ci yow koo xam ni mbindeef yépp dinañ ko topp ci jinne ak ku dul jinne ci nit ak jinne mhm. bi Abdul Muttalib géntee loolu lañ ko wax gént gi samaam Cheikhul Xaaji Malik nee na bi mu ñibbisee moom Abdul Muttalib li mu njëkk a def doxal tuuti yàlla dogal mu takk ndaw su ñuy wax Fatima waxat tazawaja xaalu baadu Fatimatin Fatima moom tachammalat bi abil haadi min arrahim samaam Cheikh Alhaaji Malick nee na ci la takk ndaw su ñuy wax Fatima Fatima moomu nag moo jur Abdoulaye mais Abdoulaye du taawam ndax waa abda kaabata jaat minhu abdu manafin abda kaabata la njëkk a jur abdu manaf topp ci Zubayru topp ci Abdoulahi soog cee topp mhm. ci Abdoulahi soog cee topp kon nag Abdul Muttalib sàmba bi loolu xewee. Mhm. ci la ci la ci la départ nag moom Abdul Muttalib pour wutali Abdu ba mu amee Abdullahi euh, ndeysaan ba yàlla feeñuwaat ko ni ko la nga nisooroon da ngay rey benn mhm. doom ba mu leen bantalee Abdullahi moo génn waaye Abdullahi mujjul dee ndax dañoo teg dañoo teg bant. diggante Abdoulaye ak gilleem ga ca la leen euh, gisaanekat ba nekkoon xaybar wax fa mhm. tabaarakallaahu foofu la jaar ba Abdul ba Abdoulaye mucc parce que daf ñuy daf dafay damay bañ mu yóbbu temps bi te taxu ñëw jóg waaye ba Abdoulaye muccee nag ca la Abdul dem wutali ko soxna mhm. soxna sam ko wutali nag moom la ñuy wax soxna Aminatu mhm. Abdul Muttalib moo dem wutali ko ko fekk Amina moomu li ma la wax ni la bàjjeni rasulullahi la di yaayam Abdoulaye di papa yonent bi nijaayam mhm. moom nga wax sànq ni Aminatun bintu Wahbin ibnu Abdi Manafin ibnu Zuhrata ummul Mustafal عالمي ابن كلاب وقل فيه انتصابهما ابن كلاب كلاب موم وقل فيه انتصابهما نينا آه نينا آمنة ak Abdoulaye ci maam bu ñuy wax kilaab la ñu daje kilaab kilaab Muhammad Abdoulaye Saybata Hashim Abdou Manaf Xusay kilaab Amina wahbin abdu manaaf zuhrata kilaab ci maam bi ñuy wax kilaab ca ca la ñu daje fa tabaarakallaahu loolu nga ubbee yëf yi sëñ Samba dafa mel ni li ñu desee taxu koo bari noonu loo ñuy tegal ci yonent bi ya sayida rusul kiraami wa taajawum خير القلائق من بال عرفاني يا من بعث لرحمة وهداية صلى عليك ملائك الرحمن صور القرآن تؤيد سبقكم في العلم والأسرار والعرفان كن ينلت به يا سيد الرسل الكرام وتاجهم موي خير الخلائق من بعد العرفان أكرم بمن سجرت الأشجار لأجله وغادت الأنهار شكا إلي جمل مولاه من فطن منه لما يلقى وشيد الضب له رصالا والظبي والذئب بلا مجادلة وقبل رأس النبي شاتو damaa bëgg xam nga damaa bëgg damaa bëgg après sëñ Samba nga woyal ma Cheikh Al Khalifa Serigne Babacar si waxal ci loolu ñaari bayit wa qabala ra'sa nabi shaatu da baax Malick borom sàmm 40 ans zéro fët borom sàmm sembe ba borom baat bu neex ba mel ni ngalam moo wax lool mawdo si taajul ulama wa adibal udaba baye serigne mbaye abdou borom la gi baye serigne mansour si dabaaxa xawal lol wa khabara rasul nabi shaatu Mam dabaax malik ne wa qabala fun na gat ba rasul nabi bop sayyiduna muhammad bako a bako halimatu saadiye jele ca makka ba indi ko saat kama bi xat amba arruwaatu nee na yonent bi biñu ko terele halimatu saadiye diko waja nampal gatti dano ñew di fon bop bi ne neena kama bi xat at ba ar ruwaatu neena netali kat yep ni lañu ko waxe aynu qataadata bi duuni masiwaaru saxaaba wax khatada ba mu demee xare ba ñu bënd bëtt ba mam abdu neena bëtam bobu werna peleng peleng peleng te ken yu ko hôpital ruddat kama neena demul hôpital de waye bëtt ba ruddat kama kana mel namu melon bi lamsil mustafa sayyiduna muhammad ko ray rek mu wer wal baytu qad maala ma al arkani neena sayyiduna muhammad bi mu ganee àdduna nee na kaaba gi dafa jékki-jékki jéng ànd ponk yi saajidatan lil mustafa al adnani waaye kaaba ga sëriñ ibrahima ja sa ba mu ganee àdduna kaaba ga dafa jéng ànd ak ponk yi waaye saajidatan mu sujjoot lil mustafa al adnani ngir sayyiduna muhammad sëriñ ibrahima sa waaja joojee nee na seen xërëm ya daanu na ngir doomi Amina moo gën a àdduna wa surur idaa dawil inaadi sëriñ Samba bàkkal ma Cheikh al Khalifa damay waaj a waaj sëriñ Babacar Si mooy xalifatu cheikhi wal muxtaari yaa fi dimbal radiyallahu anhu yaa fi fajal dinaay daanam te ñëpp la war bu ci résidence Cheikh al bu sëriñ Ibrahima Dia فاونيوي سرين با بكر وخليفه شيخ والمتاريا في ديمر سي اي فجل دين ايدا نمتني بلا ولا خليفه ايوا شيخ والمتاريا في ديمر xasana ci lu ay ngëneel ka tax muy jóg di feent Cheikh Ara Aliba ay waaye wal mutariya fi dimba ndeysaan suñu maam Abdu ne akiti حوله خير ومطرني كدل خليفة أيواي والمطاريا في نيسان Atene ma yagajal diine ay daana deje maam abdu ne ngir taggu xam ne ay xar baax a la ca bay minal fada ili ngir ngeen mooy ci moom bu dëgër yaa dëddu a duna ak mboolem lu ne këcc biir weetal borom bindu moom ngir xam ni duna tu sulle na mbayi te bakku ko bil andahi mo bilahi tu sulle na mbayi te mbay bu muy kaman ja te bu muy mex da bu muy torobet bu muy gitaar te bu muy fana balile dili war bu leen ko xiinal te bu leen bala ma ba leen junjung ye te ba leen baboor mi ngeen ma ne musawe elana فكسفر عطيقك إنه عقل لغير بريا يلا مين في بيلو خمدي سير بابا كرسي بريا يلا مين في بيلو خمد بلاي نالا مين غبا يا سيرين بابا كرسي نالا مين غبا يا يا ميرو ميك بغورغي بدينا جي باي منتي bay ku ci ku ñu raw doon bay dafa ànd ak bay si bu bu ñu jaaxee bay soo ko woowee soo ma aljana bay bay ku bëgg sëriñ Babacar bay bay acca ku bëgg sëriñ Babacar bay bay Bakar bay bay am na fay tool ac yawmal xiyaamati fa la nuy toog dina te naan rabbu tabaraka rabbu taxaddasa rabbu ta allah uluwa rabbiyal bay bay baakul ci di ay bay baakul yaa wara baakul bay ku la xool ku la daaj ku la fay ku la bay sooya boo yàlla may la koy may. macha allah macha allah wax ne nag jaay laalo fa ñuy toggee cere waaye fa ñuy toggee salade ku fay jaay laalo doo jaral. tabaarakallahu loolu li ma ci jublu rek mooy bàkke nga Serigne Babacar Sy radiallahu taala anhu fi nga ko war a bàkke mm-hmm. ndax fii nga ko bàkke mooy résidence Serigne Babacar Sy radiallahu taala anhu Cheikh Ibrahima Dia tabaxal ko Serigne Babacar Sy def ko R plus 2 taaral ko ba mu taaru lool mu jël ko tuddee ko Serigne Babacar radiallahu taala anhu kon nag boo fi bàkkee Serigne Babacar si radiallahu anhu wàcc nga sëñ Samba tabaarakallahu waxtu wi jeex na tàkk tàkk tàkk tàkk tàkk tabaarakallahu dañ lay bàyyi nga nuyoo nuyoo boo xam ne nuyoo ak tàggoo ngay boole waaw fa tabaarakallaahu di sant yàlla bu baax julli ci yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam mm-hmm. di kontaan ci jotaay bii nga ñu nga ñu boole macha allah muy jotaayu Seydina Muhammad sallallaahu alayhi wa sallam waaw incha allah dafa gàtt incha allah incha allah yow heure boo ko bëggee ak saa yoo ko bëggee rek tabaarakallaahu ndax yow yàlla daf ñëw boole ñu mu yàgg lool lool lool lool boobaak léegi fa tabaarakallaahu nga téye ñu sa bopp jàppal ñu te yàlla rek tax ak li ñu bokk muy Seydina Muhammad di kontaan ci jotaay bi bu baax ak fii ñu ko defee itam fa tabaarakallaahu muy kër suñu rakk nga xam ne dafa bokk ci ñi nga xam ne sama keppaar lañu la ñu yaroo moom Cheikh Ibrahima tabaarakallaahu waaye muy xale bu loxom set di ko ñaanal yàlla di ko di ko di ko di ko di ko wax ne chaque jour rek dama koy wax leen rek laa ko nawee mooy fonk mu fonk yaayam waaw fonk yaayam te man ku fonk sa way jur rek tabaarakallahu ala kulli xaalin leneen leneen loo mënti am te fonkoo sa way jur téyeel waaye boo foo boo am loo mën loo amul boo fonkee sa way jur rek ma téyelee tam macha allah mi ngi góorgóorlu ci way juram bu baax a baax a baax ndax da ciy waxtaan ak ci man lu bari ci bébé yi mu amoon ci way juram ba tey yàlla dogal mottalil ko ko kon yàlla na yàlla taxaw ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di kontaan ci sopp yi nga xam ne ñu ngi ñuy bégee fu nekk tabaarakallahu di ñaanal sama wayjur wu jigéen yàlla na yàlla guddal fanam ba mbébét yi ñu am ci moom it ñu mottali ko ci barke Seydina Muhammad di sant xale yi nga xam ne ñoom lay àndal tabaarakallaahu ñu ma ne ay xale sax waaye samay morom lañu léegi ndax lu nekk la ñuy partagé ak ñoom ñu déggal ma topp sama ginnaaw buñ may awu di ma aw awu yéene moom du ñaan yàlla di euh, sant bu baax waa télé bi moom ñoom ñu ñu may opportunité opportunité bi muy waa Thiès Média ñu mën a wax yonent bi sallallahu alayhi wa ba kenn kenn sax mën ci bëggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun doy nañu wala ñu tagg Serigne Babacar ba kenn mën cee jaari tagg bëgg say Serigne Babacar si ñun loolu doy nañu te loolu ñoom ñoo ñu ko may mais grâce à toi ji la ñaanal yàlla yal na yàlla guddal fan bi ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu soppe yëpp di kontaan ci ñoom macha allah. sëñ Sam mbokk bëgg nga taggal ko yonent bi nu muy def. وعلى كل حال امول انترميدير ان شاء الله ربنا سوني نيميرو لا نيو جوخي ديريكت خامنا كو نيو سوخلا بو جاري سي نون بو سوب يالله ان شاء الله ليغا بغي سي نون دينكو ام سي تاغ يونت بي صلى الله عليه وسلم داخ سما وجور داف ني مو وون تاغ يونت بي بو كو ديف مانا ميتي بو خامنا داغا سي كومير داغ كوي كوميرسي دي سي لاج ديرم داخ مو ني ما تاغ كات يونت بي لوكاي جارين بوت دو سي تيغي دغ لا واو li jara li jariñ tàggat yonent bi bët du ci tege te alhamdulilah loolu feeñ na bari na ku mel ni ku mel ni Cheikh Ibrahim Dia ak keneen ak keneen léeg nga toog ba mu yàgg rek ñu envoyé la dara euh, loolu bët du ci tege. Cheikh Ibrahima moom mën loolu moom Cheikh Ibrahima moom loolu moom. jékki-jékki envoyé la dara moom Cheikh Ibrahima daanaka daa mel ni ba defar euh, transfert yi moom lañ ko defaral. ak ñeneen ñu mel ni ñoom ñoo xam ne yàlla boole nañoo ñu boole nañoo ñoom. Mm-hmm. ñu ñuy taxaw ci côté boobu di ñu di ñu di ñu yéene seen seen seen seen lépp. Mm-hmm. kon numéro bi mooy cent 77 388 03 01. 77. 388. 03 01 incha allah tabaarakallaahu moo ngi affiché noonu. incha allah bu soobee yàlla ñuy kontaan ngeen mën a jot Serigne Samba Mbodj incha allah. boo leen bëggee mu tàggal leen sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi gërëm mbooleem ñi xam ni ñoo ñoo ñoo ñoom la ñu àndaloon. ci ci ci émission bi muy sunu technicien yu baax yi. ba loo leen gis mu rafet rek wala mu leer wala mu taaru. wala ngeen dégg mu neex ñoom la tabaarakallaahu muy sëriñ Abdou Mbacke saw tabaarakallaahu ak xaaji euh, Ndeyne Diop ak sëriñ Adama Diouf tabaarakallaahu ñu nuy ko moom itam tabaarakallaahu ñaanal leen yàlla su sunu PDG Ibrahima Jacques Dieng waaye mooy mooy chauffeur bi moom moom moom chauffeur lañ ko jël léegi wax dëgg yàlla euh, ñu ñu ñu ñaanal ko yàlla <laughs> yàlla defal ko jàmm ak sutura ak ña ñu bàyyi ginnaaw ñoom ñëpp rek équipe cees Thiès Média yëpp yëpp yëpp bàyyiwunu kenn fa tabaarakallaa ndax cees Média équipe bu yaatu la xëy na ñenn ñu ngeen di gis nii rek ci écran bi waaye équipe bi ne ci ginnaaw kenn xamul nu mu toll euh, le DG Cheikh rawul ñu nuyu ko ziyaara ko fa tabaarakallaahu waaye ñu euh, gërëmaat bu baax santaat ki nga xam ni mooy Cheikh Ibrahima Dia borom tawfiix borom jinne yi fa tabaarakallaahu ndax itam moonu dalal fii ci résidence Serigne Babacar Sy ñuy mën di fi defee sunu ay émission tabaarakallaahu nga xam ni boo leen gisee mu rafet taaru jaar yoon décor bii ngeen gis tabaarakallaahu lépp Cheikh Ibrahima Jalla fa tabaarakallaahu ndax bu nu ñëwee dañuy jox fu sedd guy macha allah gis ngeen ñàkkuñu ñàkkuñu defuñu dara ndax fu sedd guy la ñuy jox tabaarakallaahu laalal ñu laalal ñu lum ñu laalal ñu 18. waaw laalal ñu 18 tabaarakallaahu ñu toog mën a mën a mën a enjoy émission bi mën a tagg yonent bi sallallaahu alayhi kon ñu ñaanal ko yàlla moom Cheikh Ibrahima Dia yàlla na ko yàlla defal jàmm. yàlla na ko yàlla defal sutura tabaarakallaahu muy fajkatu aajo bu mag nag. tabaarakallaahu di ñaan ni nangu am na ñoo xam ne gis nañ preuve yi ba tàyyi tabaarakallaahu ku ko bëgg a jot moom Cheikh Ibrahima Dia da ngay def 77 757 18 86 77 757 18 86 fa ngeen di jaar bu ko defee problème àdduna yëpp incha allah mu jàppale leen ci incha allah di leen jox dig daje incha allah fii ak 15 jours ci seen beneen émission Al Karim ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla na nu yàlla defal jaam ci barke Seydina Muhammad asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu